conseil départemental Koungheul ndaje mi xam moo moo bu dajale tey mu nekk journée euh, de mobilisation euh, journée de mobilisation sociale dans le cadre de la décennie de de mise en œuvre de la décennie de la l'agriculture familiale au Sénégal léegi nag loolu dañ koy organiser chaque année ñu ngi commencé depuis dix mille deux mille dix neuf ba deux mille vingt huit le programme comme c'est un programme de dix ans ñi koy def mooy béykat yi nga xam ne. kuréelu béykat yi nga xam ne ñoo bokk ci CNCR ñi bokk CNCR ñooñu la ñooñu ñooñu la concerné ñun ñu ci bokk ñooy dajee di def journée yooyu pour naka lañuy def ba mën a suqaliwaat mbay mi mbayum kër yi pour ndax njaboot gi am lu ñu mën a dundee ngir njaboot gi parce que ji li ñu gis yëpp gis nañ ne mbay bi ñu am léegi li ci ëpp mbayam business la ñuy def te moo indi problème ak jafe-jafe yi nga xam ne tey dëkk réew mi mu ngi koy doxee ba ñëw si département ba tey si département Koungheul tey boo gisee loolu am na fi am na ñoo xam ne tey man baykat laa di bay te balaa mois de juillet fekk sama dugub jeex na tàkk ndax prix yu neex yi may topp dem di jaay ko ba loolu te loolu nga ci biir loolu tamit ñu ngi xalaat des cultures au niveau du département de Koungheul duñ bay dugub rek ak mboq ak gerte yem ci mais ceeb soxla nañ ko ceeb boo xamante bu ñu état dimbalee saytu dana li méngoo ak seen suuf xam ne dana mel suuf parce que fii jéer gi moo gën a am ñu indi ñu kon ceeb bi ñu wax ceeb nirika muy ceeb boo xam ne dañ ko bay si jéeri gi ñu am pompe dañuy jaay dugub jënd jënd ceeb buñ bayee ceeb di am ceeb di am ay tonnage ceeb kon yaakaar naa dana gën indi yomb-yomb ak dana gën a mën ni saafara si li nga xam ne mooy plan décennie bi sur l'agriculture familiale fii si département de Koungheul kon daal loolu yaakaar naa bu ñu si gën a taxaw dana ñëw la ngeen tënk Euh, liñ yaakaar ne mooy tey moo tax ñu daje tey fii tënk nañ fi lu bëri xam ne si askanu la génnee ñu xam ne bu ñu ko defee dañu dañuy baax premièrement bëgg nañ ay semence semence de qualité bëgg nañ ko ay engrais engrais naam engrais chimique bi xam nañ ne baaxul a cent pour cent parce que baaxul si suñu organe bu ñu ko lekkee mais engrais organique bi bëgg nañ ko favoriser parce que ñun gis nañ ne ñi nga xam ne ñooy éleveurs yi nga xam ne bokk nañ si seen tey bokk nañ te ñu ne dañ si jàppale ngir si fumier bi nga xam dañ koy am ñu mën kaa valoriser di ko def sin tool yi yi jóg si jur gi ak yeneen produit organique yi nga xam ne mu ngi nekk si kër yi seen yooyu yëpp bu ñu def si tool yi dana tax programme bi ñu bëgg a dañ ko mën a jàppandal danañ mën a am rendement yoo xam ne rendement yu am solo yoo xam ne dañ ko mën a dundee te dañ gën a tax tey ci ndaje bi ñu am xelaat ne lépp li ñuy bay lépp li ñuy bay li ci ëpp solo ñu ba xam mën nañ xëy li ñuy bay di dundee bu ñu xamee li ñu war dundee rek incha allah danañ mën a dem vraiment loolu bokk na ci programme ndaje bi ak tey. Euh, ndaje euh, loolu a mën a jëkk nag loolu foofu la tamit comme ni ko sama naataango Birane ta waxee manqué woon na fi waaye tey bis ni tey jël nañ ci décision fas yéen taxaw ñun ñëpp manqué koo jàpp pour taxawal cadre boobu parce que lépp comme ñoo bokk benn jublaay bi ñu jëm bit bi ñu def bi ñu def ñoo ko bokk suñ ci àndee taxawal benn cadre de concertation des producteurs fii ci département de Koungheul yaakaar naa liñ bëgg nas ak liñ bëgg a def ak jàppalante bi ak ndimbal bi yaakaar dañ mën a réussir vraiment le projet de ce développement. bi gis nañ bi coow yi day a xam waaw xam nga tey kon lii wanalee baykat ak sàmmkat ak nappkat ñoo bokk ndey ak baay mënuñu tàggoo donte réeroo day mënta ñàkk ci biir famille loolu moo indi loolu mais bis ne tey képp kuy baykat képp kuy éleveur lépp lu ñuy def nañ ba xel ne ñun ñoo benn jubluwaay bi parce que bu ñu bëggee dund seen dund gi mënuñu ñàkk soxla meew mënuñu ñàkk soxla euh, euh, soow mënuñu yaa sax ñàkk soxla ndawal mënuñu ñàkk soxla dugub te baykat bi lam soxla ci sàmm ba sàmm moom la soxla ci baykat kon mënuñu tàggoo nappkat bi donte fi amagut euh, euh, amagut fleuve bu ñu nappee mais mën nañu créer des euh, ay pisciculture yoo xam ne ni mën nañ ko di yar jën xam ne jën danañ am jën ju baax de qualité ñu koy am physique vraiment moo tax kon léegi lëkkaloo boobu message bi may joxe daal vraiment baykat à part d'aujourd'hui képp ku dégg suñu kàddu nañ xam ne dañ bokk ndey bokk baay jàpp àndandoo di yëkkatandoo di di tëralandoor xam amul leneen lu fi nekk étranger si ñun comme ñun neen la nañ jàppalante baykat du dem bay sàmm sàmm dem parce que man mi bay maa ngi bëgg a nag baykat ba am na tool na sàmmkat ba am na tool nappkat ba am na tool kon ñun ñëpp kenn du bay dem bay sa morom kon nañ gën a jàppante joxante loxo la mais dans la mais et on essaie de bâtir le développement et le pari du développement de la du département de Koungheul je vous remercie euh, je pense que Matadi la su ngeen mu munee baal ma waxee ko ci kàllaama boobu di la ñu toog tey ci Koungheul amul cadre de concertation boo xam ne mun na regrouper organisation yi acteurs yi ak organisation de la société civile yu nekk fii loolu gàcc la euh, man euh, yaakaar naa deux ans ci ginnaaw jéem naa ci sax def ay effort c'est je pense bu fi toogoon dana ma mun a témoigner fekk naa ko magasin waxtaan naa ci ak moom waxtaan naa ci aussi je pense ak ku mel ni Aliou Sall mi moom itamit mun na ma témoigner ak ñeneen ak ñeneen mais léegi léeg parfois da ngay jéem lu baax nit ñi am neneen nuñ ko apprécier am yuñ ci dugal ba mujj gàpparle ko kon loolu moom ma daloon ci mbir moom mais man li may sàkk mooy à partir d'aujourd'hui comme ni ko sekk waxee ñeneen ñi toog ci table bi ci présidium bi waxee ko nañ leen fexe di daay war a sooli à Koungheul ñu am un cadre de concertation parce que jumtukaay bu am solo la boo xam ne fépp fu mu taxaw acteurs yi fa nekk nit ñi daañ leen nawloo dinañ leen respecté muy donateur muy service technique yi muy état bi nga xamante ne moom mooy accompagner. kon mbooloo bi gannaaw bu ñu demee ba pare lu ñuy def d'abord mooy sant leen gërëm leen ci seen teewlu ak seen participation gis nañ fi participation bu am solo kon lu ñu séntu woon ci lii yëpp gis nañ ko ba gis nañ li ko raw lu waraloon ndaje bi nag kii wax na ko. mooy màggal décennie fukki at yoo xam ne ñu ngi koy UNESCO reconnaître ne ko ci agriculture familiale moom lañ doon feete tey suba Malem Odar la gannaaw suba Kaffrine gannaawaat suba Birkilaan kon nii lañ koy toppee kon tey ñëw nañ fi wax nañ njëriñ agriculture familiale gis nañ ne Euh, bu ñu taxawul ñun suqali suñ agriculture familiale bi agriculture industrielle bi mooy ñëw dugg ci département bi te bu ci duggee day am ay conséquences yu bon benn euh, dañuy indi fi ay semences hybrides semence yooyu boo ko jiyee benn yoon day day tax ba semence bi ñu yore woon bi day disparaître parce que semence hybride boo ko jiyee rek benn yoon boo bu liyee rek dootoo amati beneen jiw te euh, yéen ñi nekkoon fii di béy di lii ñoom bu ñëwee dañ leen di employé nekk ngeen nekk seen surga ñu leen di fay ay salaire ngeen leen di leen ñuy jël di yóbbu feneen di transformé ji feneen kon suñ lépp lu ñu amoon fii ci potentialité ñoom dañ koy yóbbu yóbbu ko ci feneen boo xam ne beneen département la loolu moo tax nag ñu taxaw ñu ne ñun ñëpp nañ booloo parce que tey euh, béykat mënul béy sans sàmm parce que day am fas day am mbaam day am nag pour mu mën a béy te béykat boo xam ne am na jur moo ëpp la muy am rendement ci ko amul jur parce que tos bi dafa am importance bon ñu ngi coow coow transhumant transhumant yi mais buñ mënoon gérer transhumant yi nañu amal économiquement importance boo xam ne c'est capital pour l'agriculture et pour le développement de ce département parce que mën nañ dem dos tool yi gis naa benn benn waay suñ suñ dëkk moom xam ga lan lay lan lay dundee dafa topp ci ci tos di ko dajale di sol ci ay saako di jaay ay oto oto yi di yóbbu Dakar loolu rek mooy métier du béy du def dara day topp winde rek fu winde bu lii bu tos toxu mu ñëw indi ay saakam sol sol sol ba mu nekk ay ay camion mu jaay ko kon ñun loolu ñu am fii buñ ko fooyee buñ ko bu ñu tayal tamit buñ dépendre tamit ne dañuy dépendre toujours ci ci ci état semence ñun ñoo ko war a gardeel suñ bopp parce que kenn ci ñun jaayul état d'abord un kilo kon ku béyul nag boo ko nee pour mai mois de mais mois de juin yaa may jox euh, semence te yow jaayoo ko fan fan la koy jëlee da ngay nax sa bopp engrais bi am nañ ko organique bi mu ngi fi nit ñi nag ñoo tayal parce que li ngay suqi sa fas li ngay suqi sa peer seen yi ñuy sànni ci gannaaw gàññ la fi ku ko jëloon yóbbu ko sa tool dootoo dootoo soxla engrais kon ndaje bi tamit wane na tey sàmmkat ak départ euh, ak béykat ci departement de Koungheul benn lañ kenn mënul dem bàyyi keneen ki ñu ngi leen di sant di leen gërëm jërë ngeen jëf yéen yëpp merci.